bismil ilaahi ma jóg man sant lillaahi sangub jigéen ñii ci dunyaa jaaratullaahi bismil ilaahi ma jóg man sant lillaahi sangub jigéen ñii ci dunyaa jaaratullaahi ngir ñépp ñépp ko gàddul cant war di ko way ka ñaanal الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد الأمين وعلى آله وصحابته غير الميامين وعلى خير خديمه بحبل المتين وعلى من اقتفى آثارهم إلى يوم الدين بوك جلدي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ginnaaw bi ñu musuloo ci seytaane tàmbalee ci turu borom bi subhaanahu wa taala sant yeneen tambu tedd bi sallallahu alayhi wa sallam sant Serigne Touba Xaadim Rasul saana la bi karam baaxi xadim ñu leen di nuyu di leen ziyaar di leen bal xàq di leen kabaar di leen ziyaara yéen ñëpp ci weeru tamxarit u màgg bu tedd bi ñu dugg di ñaan yàlla subhaanahu wa taala mu jéggal ñun ñëpp ci daraja yi Cheikhul Khadim di beral cant ak ngërëm suñu caméraman bi ñu jàkkaarloo muy sëriñ Mbacke Mbegere di ko ñaanal liggéey yi nga xam ne moom lay liggéeyal Serigne bi yàlla na ci suñu borom yàlla na ko ci yàlla faylu kale njortam di beral cant ak ngërëm mbooleem képp koo xam ni yaa ngi jàkkaarloo ak ñun bi ñu siibu fii ci émission daara yi soxna jaaratullaahi di la ñaanal fa nga bëgg egg yàlla eggala ci dara jamono yi waxtaane ci sëy jamono yi yëpp ba fi ne fam toll nii tey ñu fas yéenee leeral rek comme bi passé ñu doon waxtaane ci nawlante tey ñu fas yéene waxtaane rekk ci ñaari soxna wala lu ko ëpp ku ko yor naka nga koy gérer ma maanaam ku ko yor ñaari soxna wala lu ko ëpp naka ngay nekk ak ñoom ak naka nga war a rafetale seen diggante ci loolu lañ fas yéene waxtaane tey suñu kéem dalaay kàttan ndax yàlla subhaanahu wa taala mi nga xam ne moom moo ñu bind moom moo ñu gën a xam moom moo ñu gën a xam waaye nag dafa di xol moom yàlla moo ko moom te bu ko neex la koy jox xam gim ñu xam nag moo tax mu ne eh, mu dénk ni jullit yi ne leen bu ngeen di tànn soxna ne leen fankihu maa taaba lakum minan nisaa masnaa wa sulaasa sa rubaa fa in xiftum an laa taadilu fa waahida subhaanahu wa taala daf bu ngeen na ngeen takk lu leen neex lu leen soob ci jigéen ñi ñaar wala ñett wala ñeent waaye bu fekkee ni nag mënoo leen ragal ngeen ni kat doo leen mën a maandu ci soxna yooyu bu ngeen leen takkee kon na ngeen yam ci benn soxna ku ragal ni boo yoree ñaari soxna wala ñett doo mën a maandu kon na nga yam ci benn soxna li ngir xam gi nga xam ni ya xam na ko doomu aadama moo tax moom mu wax loolu mu dellu ni wala tamilu kullal mayli wala tazaruha kullal muallaqati sadaqalal azim mu dellu moom wax yi subhanahu wa taala ni bu leen jeng bépp jeng koo xam ni dangeen di jël seen jigéen ñi walla seen soxna yi def leen ay objet yu mel ni ay kudd ngeen wékk leen maanaam am sa benn kudd bu bees jël bu màggat ba nga yoroon wékku ko ca waañ ba rek dootoo ko faale ndax bu bees bi nga yor loolu la yàlla misaale foofu noonu la ko misaale comme ni koy olof yi di waxee am naa toj ndaa wala nga am ku bees fàtte ku bees ka loolu la subhaanahu wa taala di tere góor bi moo tax mu wax loolu muy loo xam ne bépp koo xam ne képp koo xam ne yaa ngi yor ay soxna war nga cee bàyyi xel moo tax képp koo xam ne dangaa yor ñaari soxna ba ñett ba ñeent nga xam noo xam ni noonu koy noonu ko man noonu koy gérer moo tax mu ne man kaana mutazawwijan bimra'atayni aw kasiran xaraa'ir aw imaa'in wala muslimaatin wala kitaabiyaat yooyu yëpp nee na boo ko yoree fekkee yàlla dénk na la nga yor ñaari soxna moo xam góor la ay gor la mo xamit ay jam la waye mo xamit euh juif nga tak mo xam wala chrétien bi nga tak nee fa innahu yajibu alayhi an ya'dila baynahum fu fekke ni da nga tak ñoo ñep ni may wax mo xam gor la mo xam jam la mo xam julit la mo xam catholique la mo xam juif la ko xam ni téere wàcc na ci ñoom bo ci takki mo jullit bi bu la neexee nga takk ci ñaar ba ñett ba ñeent waaye na nga doxalante ci seen diggante ak ñoom ak maandu nanga ko ci wéyal ba ba ñëpp xam ne maandu ko ci seen diggante suñu borom bi nga xam ne moo la dénk soxna yooyu tamit xam ne yow mii kat maandu ko ci li mu la dénk fa in lam yaadi fa huwa zalimun aasin lillahi wa li rasulihi wala tajuuzu imamatuhu wala shahadatuhu képp koo xam ne nag maandu ci say diggante ay soxna kooku nan lay jàppe ak yéefa nan la war a waaye tamit dan lay jàppe koo xam mag koo xam ne mooy nga sa borom subhanahu wa waaye may nga yonentam bu tedd ba sallallahu alayhi wa sallam te kooku day ak imaamam du wér mukk kooku mën a jiite du mën a nekk ilimaan waaye tamit du mën a seede lenn ci lislaam ndax jéng ga nga xam ni jenn na ko ci ay soxnaam bu jéng ci ay soxnaam koy kooku ilimaanam mënta wér kooku lu mu seede ci lislaam kenn du ko nangu ndax maandu bi nga xam ni maandoo ko te loolu képp koo xam ni góor nga war nga ci bàyyi xel te képp koo xam ni nag ji am nga ay yàlla jox na la ay sax te maandu woo ci sa ci ñoom ci seen diggante na la leer ne yow ma boo ñëwee te benn mbaggum suuf bi dana wàcc ba ci suuf ba ca des dana mel ni montagne salallaahu alayhi wa sallam moo ko wax kon képp yàlla dénk la ay soxna na nga maandu ci seen diggante yàlla nag moo moom xol bi kaka neex la koy jox waaye jëf yi nga xam ne moo nekk ci jëfi biti di zahir nii li nga xam ni moom la la yàlla jox muy matériel loo xam ne danga koo war a séddale na tolloo ci digg bi kenn ku ci nekk nga jox ko nga xam ne مام موي ميريتا مام لا ام واي من ومن جحد فهو فهو كافر يستدا يستتاب ثلاثا فان لم يتوب فهو كافر نونا كيب كو خامني نك ويد غا لي ليغا خامني مام لا في واخ سانك فوكو نان لا جابني يوك اك ييفر نغا كو ويد ني لي دال مام امو yow nan la jàkkane yow kat yow ak yéefar nga da ngaa war a tuut ñetti fan wala ñu rey la kon lii lu sax la lu wér la loo xam ne képp kuy jullit war na ci bàyyi xel waaye lan mooy maandu ci li ci lan mooy maandu ci lislaam ci boo déggee ñu koy wax wal adlu al mazkur yakunu fi nafaqati wal kiswa maandu daal ci ci li gën a ci li nga xam ne moo gën a siiw ci li ñu xam ci li nga xam ni moom lañu tudd mooy lan mooy dund bu mat sëkk ak koddaay lu mat sëkk kon boo yoree ay soxna na nga maamu ci dund bi na dund bi di mat sëkk waaye tamit li nga leen di jox koddaay yi tamit na mat sëkk waaye buñ ni rek ku dund bi ak ma ak euh, koddaay li na mat nga am ñaari ay soxna kii ñaari mètre war man koo war du kee juróomi mètre man koo war nga jox kii juróomi mètre ñoom ñëpp juróomi mètre ah kee wala nga jox kee kee ñaari mètre man koo war kee juróomi mètre man koo war du nga jox ñoom ñaar yëpp ñaari mètre kee dina mat la te kee du mat la kon xam nga ni kon foofu loolu taxul ñuy wax nga jox kee juróom jox kee juróom kee dina bu ëppale ba nu ko neex def kee yam cale kon kenn ku ci nekk la lay wodd moom lan lay jox kenn ku ci nekk la lay wodd moom lan lay jox bu fekkee dafa yor kee dafa yor njaboot bu bari masalan yor na fukki doom wala lu ko kee yor benn doomam dund ba mun tayam kee na ko jox la nga xam ni dina doy ak dina ko doy moom njabootam kee jox ko la nga xam ni dana ko doy moom njabootam kenn ku ci nekk bu kenn génn di dem di wuti fenn koddaay wala yére te fekk na yow am nga ko bu fekkee ni am nga ko lépp yow la war ku ko ci def te man ko it daf laa neex waaye yow mi borom kër bi yow la war kon na nga ci seen diggante loo jox kii na ko jox ka ca des li nga xam ne moom nga moom muy alal ji daal te yàlla jox la ko muy feeñ ci yow loolu na ko séddale ba mu mat kenn ku ci nekk boo duggee ci ki waxee kii nakee nakee moom it na bëgg ñamale leen ñoom ñëpp na nekk mu tawasit nekk koo xam dangay nekk ku diggu doomu nekk koo xam ni da lay ëppal fee bàyyi fee waaye bi xas bi xaali kulli waaxidatin fa sharifatu bi xadri misliha wa day dayna daynatun bi xadri misliha daniatun bi xadri misliha kon ci kemu ci kem kenn ku ci nekk na nga na nga koy yore ndax foofu moom l'islam dafee def exception bu fekkee ni ma ku tedd gi ndax islam nangu na nit ku ay askan woo xam ne dafa suufe waaye noonu lay nangoo yi askan woo xam ni askan wu wu wu kawe la wu am daraja bu fekkee nag danga am koo xam ni soxna si dafa am daraja lool ah bokkul ak ki nga xam ne ku xeewu la ku amul wenn askan ñoom ñaar na nga leen di yore dunyam kenn ku ci nekk rek danga koy téyee kem na kem moom fa dara jaam toll fa nanga nga téyee na nga ko téyee noonu waaye nag ci fanaan ma moom bokk ca ñoom ñëpp ñoo cay tolloole ki nga xam ne it dafa suufe moom it a àqam na ko jox kem na dara jaam yi noon nga koy téyee waaye fanaan ma bokk ci fanaan mi nag gu ñëwee am na naka nan lan war a doxale وفي المبيت فلا يدخل لحاجته عند من لم تكن نوبته نوبتها وإنما يطلبها من خارج البيت والقسم والقسم بيوم وليلة ولا يقسم بيوم يومين إلا برضاهن kon fanaan mi nuñ koy defee bu fekkee ni ayoo ci benn néeg soxna néeg ba nga xam ni ayewoo fa waruloo dugg faa am waruloo faa dugg donte danga faa fanaan sax li fàtte fa lu ñuy wax benn mbaxana wala benn objet bu ndaw rek amuloo droit dugg fa <coughs> lu dul li dangay ci bunti bi nga yónnee laaj ko ñu jox ko waaye amuloo droit dugg fa ndax ayewoo fa kon ay bi noonu lañ koy séddalee bu fekkee danga faa am aajo waroo faa dugg ndax waroo faa dugg ndax ayewoo fa néeg ba nga ay rek fa nga war a dem kon suñu waxee sànq comme ku am daraja ki ak ki suufe ki donte bokkuñu noo leen di yoree waaye fanaan moom bokk ca fanaan moom ñoom ñëpp ñoo ci bokk yam nga ñoom nga ciy maasale la ngay fanaan ci moom ngay fanaan ci fanaan moom bokk ci ñoo ciy bokk ñoom ñëpp yam waaye séddale bi naka lañ koy séddale benn bis lay doon ak benn guddi benn bis ak benn guddi lu dul li soxna yi ñoom ñoom ci seen bopp ñoo waxtaan gërëm ni kat mën nañoo def ñaari fan ñaari fan ñaari ñu d'accord ci ñaari fan ñaari fan soo fanaanee fii ñaari fan jóge fa dem fanaan fee ñaari fan bu fekkee ni soxna yi waxtaan nañ ci ba gërëm loolu ànd ci kon boobu lislaam d'accord na ci ngeen ñëpp ngeen àndandoo ci fanaan ñaari fan fee keneen sa morom ay fanaan ñaari fan ndax sallallahu alayhi wa sallam ku ne xam na ne moom amul woon néegu boppam da daan di dem ci néegi soxna yi noonu la ko daan defe ba ci ay fanam yu mujj ba nga xamee ni tawat ji dab na ko ba muy dem di aye ji waaye mujj gi mu sonn soxna yi bañ demee ba xam ne moom mi mënatu te lañu waxtaan seen biir daat koy may la nga xam ne mooy Aïcha radiyallahu Aïchatu a anha ñu may ko mu féete ak moom ndax suñu boroom mooy tànn te ñépp xam nañ ni Aïcha moom lu waaye gàtt gàtt xel ginnaaw Xadija xam nañ ni moom moo doon xolu yeneen bi alayhi salaatu wasalaam ñu ndax te yàllaa moom xolam te ku ko neex koy jox ca la ko bàyyee féete ak moom ba mu faatoo foofu ngir yonent bi li tax mu demoon ba bàyyi lam ak ni mu ko bëggee woon su daan xëy suba da daan dugg ci néeg buntu néeg na bu nekk dafa daan taxaw di fa nuyoo di leen nuyu waaye comme jigéen ñi ku nekk ak say xeem man xam naa ni sama boroom kër lii la bëgg bu ñëwee taxaw ba mu fay taxaw diir ba mu fay taxaw dina xaw a metti ñee sax dinaa ko def ndax taxaw yàgg yàgg gi mu fay xaw yàgg su ñëwaat bu nuyoo di nuyoo ba egsi ci buntu nekk Xafsa da ko daan jox lem muy taxaw ko di ko naan ndax bëgg gi nga xam ne yeneen bi bëgg na demee ba xam ne diir bi mu fay def du ko def ci yeneen néeg yi moo taxoon mu mujj sax far daal di bàyyi lépp ngir mën a yamale ñépp ñëpp mën a yam ñëpp mën a tolloole ndax bëgg la lor kenn soxna yi biñ demee ba laaj ko dañoo bëgg nga wax ñu kan nga bën gën a bëgg ci ñun kañ kan nga gën a bëgg ci ñun dañ leen dinaa leen tontu dem ca dëgg ba defar lu juróom-ñeenti jaaroo ñëw nit bu mu fanaan kenn ku nekk mu jox la benn jaaro ku ne mu jox la jaaro waaye dinaa leen waaye ba tontu jotee dañ leen kenn ku ko mu ne boroom jaaro bi daal su ko defee kenn ku ci nekk jàpp ne yonent bi mën la gën a bëgg te loolu mooy ak maangu su ko defee kenn du mën a yab sa moroom kenn bu mën a xool sa bëtu moroom ne ko xool sa moroom ne ko yow maa la gën a maa la gën a yey wala maa la gën a xàjj kon loolu loo xam ne lu am solo mu nekk wala yusibu rajulu zawjatahu aw amatahu aw wa maahu ahadun fi bayti sari fi bayti sagiran kaana aw kabiran yaqdaani yaqdan aw naiman kon bu dagan ci benn jullit ci benn góor muy fanaan ci néeg boole fa ñaari soxna wala mu fay boole soxna sax ak wala wala ab jaamam wala mu fay boole ak xale donte xale la muy nelaw wala muy xoole loolu jaaduwul daganul kenn du ko def sa néeg daal moom boo fay tëdd ak sa soxna yaa sa soxna rekk yéen a fa war a tëdd keneen waru leen rax ñëpp war na ko sóoraale boo demee ba am sa soxna ngeen di tëdd ci néeg keneen waru leen rax bu jar naa maytu ci benn néeg moo xam mag la moo xam xale la moo xam day nelaw moo xam day xool loolu loolu ëpp dafa ëpp def moo xam jaam la moo xam gor la loolu dafa ëpp def waaye tamit mu ne yukkurahu an lu daay yudaaji'uhunna fi firaashin waaxidin wa qiila yaxrum ñu ne am waaye keneen ki moom daf ni sip nañu nga tëdd ci benn lal ak ñaari soxna loolu dañ koo sip waaye am keneen ko xam ne daf ni dafa xaram sibuñu ko waaye dañ ko dafa lu xaraam la mu yàlla xaraamal la loolu kenn du ko def waaye wuute bi moom fii la nekk wax tulifa fil jami al imaa'i fa xiila yajuuzu wa xiila laa yajuuzu wa xiila yukrahu hada fil mudaajaati wa amma fi wati ixdaahunna bi maxdari l uxra fala yajuuzu ittifaqan kon wuute ji fii la nekk ñi dañ ni nga boole jaam bi ak nga boole ay jaam ci benn lal ñoom dañ ni foofu moom bu leen dañ ni foofu jaadu na ndax bu ñu ay gor waaye tamit ñii ne nga boole ñii ne moom loolu moom dafa xaraam jaaduwul dafa xaraam mutlaxan moom jaaduwul boroom xam-xam bari dëppoo nañ ci tëdd ak ay sax na di sëy ak kii keneen ki tëdd di xoole ci benn lal loolu moom jaaduwul même bu ko lislaam dàqul sax Euh, ak jamono bii ñu toll nii nga xam ne rafetul jaadul te nag lépp loo xam ne am na ba téere yi bind ko rek am na ndax léeg-léeg nga dégg ay nit di ko wax tëdd ak sa ñaari soxna ci benn lal am na waaye képp koo xam ni doo nga ko def nga xam ni yaa ngi def loo xam ni lu bon la lu ñaaw la lu ñuy sib lu xaraam la waaye tamit waxuma la dara sax feebar sax mën na ci jóge ay infection ak lu ne mën na cee am mooy loo xam ni lu jara maytu la képp koo xam ni yaa ngi ko doon def it ngir wane sa jàmbaar wala lenn nga xam ni kat yow lii ngay def lu ñu tere la lu ñu sib la nga man koo maytu ndax xam naa ni jamono bii jaam yi wax naan yor sa ay jaam di leen booleeg lii léegi jaam yooyu wax dëgg amatu fi xëy na bu njëkk amoon na mais dootul ci jamono bii kon xam naa ni dañ koy jéem yawale yamale fii rek ndax sëy moom yaatu na lool suñu kéem dalaay kàttan rek lan doon jéem a leeral yaatu na lool waaye ñu gis ni ku yor ay soxna na nga xam na nga doxale ci seen diggante ak maandu boo xam ne maandu bu yaatu lay doon bu fekkee ni kenn ka dafa xuloo mën a xuloowe xatt it ak lu mu doy waar doy waar doy waar suñ demee ba histoire am ba ngay àtte it bul xool ni moom dafa doy waar wala dafa wex xoolal rek àtteel ca digg ba te nga àtte ci ak maandu doonte moom dafa yor dëgg ga nga jël dëgg ga it jox ko bul xool ni moom kat dafa bari istiwaar wala leen ndax lii subhaana wa taala wax na ko wa qulu linnaasi xusnan wa ida qultum an taqulu bil adli da ngeen wax eh, wax ak nit ñi wax du rafet ngeen di wax ak ñoom na ngeen ak ñoom ci ak maandu maanaam justice wax ko deg ko ci digg bi kenn ku ci nekk nga jox ko la mu moom bu dee koddaa it nga jox ko la mu moom ndaxte walahu rizquhunna wa kiswatuhunna wa asiruhunna bil maaruf na koddaay li mat yéen a leen ko war a jox col gi yéen a leen ko war a jox kon na ngeen ànd ak soxna yi àndil wu rafet kon loolu lañu lislaam sant kon ñu góorgóorlu rek ki li nga xam ne noonu la ñuy yore soxna soxna it xam ni ñoom it ah sëyit jaamu yàlla la mënut a neex ndax bu fekkee ni yàlla daf ñoo jox suñu biir léegi sëy ci lañu war a jaamoo yàlla fa lañu war a jihaate kon du mës a neex mu ndax jihaat ku ne xam na ni neexul ndax ñun jihaat bi nafs moom lañu def xeexu bakkan tax ku ne xam na ni bakkan lu neex rek la bëgg kon nanu jaayante ak suñu bakkan yàlla ñu yàlla oyofalal liggéey bi muy sëy bi yàlla jàppale ñu jàppale boroom kër yi ba lépp mën a oyof kon wa hada axiru ma aradna jamaahu min min masaili nikah lii daal mooy li nga xam ni mooy mujjantal gi nga xam ni bëggoon nañ koo dajale ci maanaam masala yi takk sëy xam naa dañ koy tënk fii ba beneen jamono ñu dugg ci talaaq ak yi nga xam ni moo ci aju ñu ngi gërëm ma jóg man sant lillaahi sangub jigéen ñii ci dunyaa jaaratullaahi bismillaahi man sant lillaahi jigéen ñii ci dunyaa jaaratullaahi ngir ñépp ñépp ko gàddul cant war di ko way booleeg siyaaraaka ñaanal jaaratullaahi